moo gën di lépp boo tëree nelaw waaye fooy dox yaa ngi gës lan la ñuy waxateeg lan la ñuy génne man mii Ousmane Sonko mu doyee di mii semaine bu nekk ñu ngi naan tey lan lay waxati loolu def jàmm ko dañ leen dénk réew mi du seen patrimoine moomuñu ko ñun xamuñu leen amuñu benn noonoog ñoom c'est pas personnel du président du feeram du ñi bokk ci parti musuma leen gis télé laa leen di seen donc koo xamul mosoo ko gis munoo munoo am euh, problème personnel ak moom waaye dañ leen dénk suñu réew 13 million de sénégalais ñoo fi nekk te réew nag même 13 millions yu sénégalais yi fi ne moomuñu ko dañuy romb rek waaye suñuy doom ak suñuy sët war nañ fee fekk Sénégal gu baax mais ñoom ñu ñëw ne gestion sobre et vertueuse mooy yorin gu sell te te leer naññ amul lu ñuy nëbb waaw loolu kay soo ñëwee ñu ne la ah problème am na. xanaa kay ñun moom la ñuy dimbale ñu xëy ne assemblée nationale reversé wul impôt te ñoo waroon njëkk a versé ndax ñoom ñooy wote loi yi yi yi tax ñu ñu fay impôt ñun ñëpp daa di dagg impôt bi toog ci Franklay nga mer ñu xëy ne pétrole bi léeg léegi li am na ci nga mer ñu xëy ne loi de finance bii nga wote rectificative ay marché à gré gré yu dul yoon am na ci budget bu référendum bi dem na ba 10 milliards te yaa waxoon 3 milliards nangam nam nga mer naan damay rajeeg damay léeg damay lii donc ñun liñ leen di woo mooy nañu delloo ci seen xel nguur day jeex. président nekkoon na fi président nekkaat fi président nekkaat fi te moom day dem te ñu ngi ñaan mu gaaw donc à de ce moment liñ la dénk fexeel. ba yor ko ci anam gu rafet boo tëddee nelaw da ngay dem yeneen réew nit dina yor réew ba jóge fa nekkaat ci réew mi ak njabootam di fa yor ay activité te coow du am da ngay gis ay ñoom Clinton ak ñoom nangam nangam eh, ah, donc Sénégal il faut que nit ñi xam ni mu moomuñu dañ leen dénk kese ku fi soxla ñëw di yalwaan suñ la joxee nag nga ñëw ku ku wax nga funki di yooxu di dal di naan damay kase damay lii nit bu yàlla sàkk. nit bu yaakaar ne mun na ko kase day nax boppam.